they can't wait now. Ticket Ticket Service got an Everyone wants to come. Yeah. service guy. Yeah. Everyone wants to come. Yeah. To get something to drink and all that. Yeah, but go up and get something to drink now. Yeah, we're okay. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. En voilà les petits cadeaux. Les euh, pins, enfin pins, je ne sais même pas, mais euh, je crois que c'est des pins. En tout cas, comme vous le voyez, c'est bien. Voilà. Les euh, boutons de machette. Voilà, je pense que c'est des boutons de machette. Et c'est tout en or. defe naa bii moom man maa koy man maa koy man maa koy yóbbu. bii moom sama bos la. donc voilà. Afrique daf daan comme di bouquet waa di di machette. di machette euh, euh, en or ah yii ma dencal ko ko rek. bi moom kenn du ko takk. dégg nga bi moom kenn du ko takk bàyyi boobu bàyyi noonu rek waaw. damay machette en get something to drink, so you can order. Yeah, but go up and get something to drink now. Yeah, we're okay. Yeah, we need to make it on your... Okay. And looking back on all your time here, um, why does it, why did it go so well?